asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi lépp waaye mën a nekk ci àdduna bi di ñu seetaan ñu ngi lay nuyu di nuyu lislaam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw sëriñ bi li nga laaj léegi muy fi nga xam ne fi nga fi lañu nekk liggéeyal ko askan wi ak population nit yi muy liggéey boo xam ne nii liggéey bu am solo la bu am boo xam ne képp koo gis sa xol dana sedd dana xam ne nii liggéey bu baax la muy liggéey boo xam ne nii nag ñëw na fi ñu ko soxlaa te kenn ku nekk xam na ne nit ñi population bi yokk na te fii may wax ak yow hôpital yi mu amagun yëpp waa Ndindee ko fi def bu njëkk ba Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadil moo ko defoon muy sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ bu Boussa Dieng moo ko tabaxoon ba muy tabax hôpital yi mu doon tabax ci réew mi booba nag moo fi nekk ba nëg dara yokku ci du état du keneen ñu dem ba 2018 euh, Cheikh Ahmadou Badiou defar fi beneen bii muy ñaareel muy loo xam ne nii ni ma wax naa ko ñëw na fi ñu ko soxlaa woon bi mu ko defee kenn yëgu ko moo ko defar boppam tabax ko ba keroog bi ñu koy inauguré Cheikh Mountakha ñëw indigré ko fii ministre de la santé ñëw fi seet si ko booba lañ door a xam ne liggéey bu mel nii am na fi boobu ba léegi nag wubbiwut 2018 màggalu daaw ba fi ministre bu ñëwee la jëloon engagement ne danañ ko équiper ubbi ko boobu ba léegi ñu ciy topp di ci topp ba fii may wax ak yow dara defuñu ko ci nga xam ne médecin district bi moo mujj obligé affecté fi benn médecin ngir mu ñëw fi ak quelques infirmiers ngir ñu fexe ba ubbi ko àllarba bi passé amagu table banc amagul dara mën naa ne la cinq lal moo fi amagul sëñ Abdou Karim Fallilu moo ko fendi leneen amagu fi bureau yi sax amuñu fi dara amut état nag dama jàpp ne comme yaa war a yor population bi ci wàllu santé nga gis ko am volonté waroon ko mun a def fu ne waroon tabax kër yu rafet dëkk ci def lu ne mu jël ñëw ne askan wi lay wàllu si def social a ah, ci président Macky sàll mi nga xam ne moo fi nekk ci yàlla ko fi di wax wàllu émergence dama yaakaar ne kon kii ku ñu waroon a jàppale la ñëw fekk ko ci lii waroon na wërta waroon am weer sax waxantuma la ak 2018 màggalam ba ñu jubal màggal gi ba fii may wax yow dara dara defuñu ko ci loolu nag see boo ma ni gàcce état la ndax nit ku am volonté defar lu toll nii état waru ci def lu may affecté médecin équipé ko ko boobu ba léegi mënta am ba moom mu jël volonté fas yéene ko équipé boppam ak lu mu mën fond propre loolu génne xaalisam def ko ci loolu yaakaar naa ni du la du war ci it président bi nga xam ne moo fi nekk yaakaar naa ni bu ko yëgoon lii doo am kon nag may lancé appel ci ministre de la santé ñëwoon na fi moom du lu ñuy koy présenté ndax moo ñëwal boppam ba ci hôpital ba gis ko kon nag moom comme ñëwoon na fi damaa jàpp ne moom war naa mën a taxaw ci hôpital bi mu am li war a am di médecin district bi fu ne ma ngi fay dugg lu ne ma ngi cee def waaye ba léegi kenn walloogu kon nag kuy liggéeyal yàlla ci liggéeyal askan wi war ngaa mën a wallu Cheikh Ahmadou Badawi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey na ko liggéeyal ko maamu Cheikh Maodo Fadal ndax soxla nañ ko lool hôpital baa ngi ni àllarba la ubbi médecins yi fi nekk table sax amuñu ko bureau yi amul dara dañoo obligé yàlla def tey nag mu amoon ay contact am ay médecins ñu ñëw kontaan ci liggéeyam ba ñëw ne ko danañ la defal médecin gratuite jële jógee ba France door a mat cinq médecins ñu ñëw fii ne ko dañ lay liggéeyal gratuite moom moo tax mbooloo mi ngeen gis fi ñu ñëw fi di consulter consultant boo xam ne gratuite lañ koy def loolu lépp ngir jàppale ko ci hôpital bi ak am ci mbégte ndegam nag français yi ñoo gis li ba am ci mbégte ba ñëw di ko jàppale waa ASTMA nag ñun euh, waa réew mi ASTMA le gouvernement du Sénégal kon nag je lance appel boo xam ne la appel bi may lancé daal mooy nañ jàppale sëriñ bi ndax nit kilo nit la koo xam ne développement rek la bëgg ndax ki def lii mi ngi ci yoonu liggéey liggéey bi nag la ci njëkk mooy former ay xale ba tey ëllëg lii di dem bu demee xale yam formé tey médecin ya mën faa génnee ñëw fii moo tax mu njëkk formé ay daara ay école daara la njëkk a def internat boo xam ne ñëpp fa lañ génne soo génnee mu def école ci biir soo génnee ci internat bi mokkal alxuraan bin sëb kaamil dugg ci daara euh, école bi di jàng ren ji li mu am ci résultat ci département bi kenn mu dem loolu ber ko école jigéen ñi ne fee école góor ñu ne fii dem ba CM2 ba ren ji am nañ CM ñaari classe ci biir école bi nag mu ngi yar ndaw ñi mi ngi leen teg ci xam-xam mi ngi leen di jox di créer ay emploi ku dem Touba boo ko gis maaw euh, aynu rahmati muy ndox mi ñuy naan moom moo ko créé usine ba moo ko defar jël employé di créé emploi ndax gis nañ ko ndindi boko xale yi jeunes yi fa nekkoon ak ñëpp defatuñ dara kenn ku ñëpp a ngi ci isin ba di liggéey ma yaakaar ne nag nit ku del nii ca nanguwoo feeñ doo ko gis ci image doo ko dégg ci dara ñun sama maas gi nga xam ne ak maaku si Amar gii ñooy jéemal feeñal li muy def ne moom nanguwut kon nag kooku dama jàpp ne dañoo war a jóg taxaw jàppale ko population bi ak borom homme d'affaires yi ak ñi am alal te war koo def ci yoonu yàlla kuy defal yàlla mi ngi nii nañ ñëw jàppale ko ndax ku ci waay def rek yàlla nga ko defal Sëriñ Tuubaa nga ko defal Cheikh Modou nga ko defal ndax lii mu def lépp bëgg dëkk bi jëm kanam dëkk dëkk Fallou Cheikh Modou Fadal bi nga xam ne ndindi la ci sëñ Fallou am na lu mu fi waxoon yaakaar naa ni ku fi dugal sa dara def fi dara danga ci am danga nga ci da nga da ngay am paju aaju lépp luñ ko fay da ko bokk moom kon nag maa ngi lancé appel waa gouvernement bi keneen ku am alal ca mën a liggéeyal yàlla na ñëw jàpp ci hôpital bi jàppale ko ci matériel jàppale ko ci garab ba population bi soxla nañ ko ndax tey ku fi ñëw li ñu bindoon ci list mënuñ ko consulter tey ci médecins yi danañ fa am ñetti fan dañu mujj obligé ne leen nañ dem ba suba ñu dellusiwaat gis ngeen li fi jot a nekk boobu ba léegi ñu ngi fi ca loolu lépp liggéeyal yàlla ak liggéeyal yonent bi gis sëñ Tuubaa ak liggéeyal maamam sëñ Tuubaa ak liggéey sëñ Fallu Baay moo ko def kon nag sëñ Ahmadu Badu yu mënuñu lu may di ko sant di ko gërëm képp koo xam ne daal li ma ko waxee ba bonne volonté nga ci bëgg liggéeyal yàlla kuy liggéeyal yàlla ngi nii boo ko jàppalee jàppale nga euh, mbindee fi jàppale nga doomu aadama yi ndax ku def lii rek jàmbaar la ñu ne sa boo ko defee sa propre moo say mooy bopp waaw léegi sa doom faju ci leen faj su ko neexoon mel na ñeneen dem def feneen may lancé appel itam ci mbooloo mi kilifaa yi nañ roy kii jàppale ci moom diggante diggante diggante diggante euh, askan wi ndax loolu kat defuñ fi lu mën a liggéeyal seen maam ci loolu seen maam lii rek la fi ba jàngukaay bi jumaa ji liggéey bi màggal loolu lépp ku ci nekk yaa ngi ci moom kon nag moom mi ngi ci jàngukaay bi mi ngi ci liggéey bi mi ngi ci santé bi ah ca siyaa mooy lépp wér wér mooy lépp kon nag nañ fexe ba jàppale ko jàppale goo xam ne nii ñëpp dañ xam ne jàppale nañ ko ndax kii daal mi ngi ci yoon bër bari bëri ko mbartaan mbartaan la nag ku ko puus mu dem ku ko puus mu dem ndax mu ngi ci yoon te ku nekk ci yoon Serigne Touba moo lay jàppale boppam sa maam Serigne Fallou lay sa baay Serigne Fallou lay jàppale boppam. kon daal Serigne Cheikh euh, yéen ñi yor média yi cay tas lu jar a tas a ngi nii lu jar a wanee ngi nii moom nag ni ma ko waxee nanguut ku ko wane nanguut ku ko wax ndax daf ne kuy defal yàlla doo ca boo ca feeñee day mel na kuy publicité wu. waaye man nag maa jël sama initiative bopp publicité li muy def ndax nit ñi mën cee jàpp mën koo jàppale ngir yàlla rek tax muy def wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu seen mbokk yi euh, Ablaye Diop laa tudd di ab donga euh, sëriñ bi nag yàlla dogal na muy suñu sëriñ di suñu xarit di suñu wëllëre waaye itam ñu am ci moom cofeel gu rëy rëy rëy ci jëf ji nga xam ne mi ngi koy jëf ci lislaam rawatina ci yoonu murit ay taxawaayam ci jàngle ak yare ak wér-gi-yaram Mm, lenn lu ne ci euh, gis nañ ci ay jéego yum ci def yoo xam ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla fay ko te dëgëral taxawaayam bu baax a baax defal ko wér ci barkeb Serigne Touba euh, benn la ci wér gi yaram bu ko nit ki amul du mën a matale ay farataam ba tax na kon hôpital bii nii lenn la ci soo doxee tuuti itam da ngay gis daara joo xam ne boo demee ndaw ya fa nekk macha allah man dem naa fa yoon yoon yoon di ànd ak moom te itam wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal ñaan goo xam ne fan wu gudd ak wér ba li mu yéene mu àggale ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ndax sagub yoon wi la lool ma ne ko sagub yoon wi la lool te itam royukaay la ci ñépp nag ma ne ko royukaay yi la ci ñëpp comme ni ko sëñ fàllu njaay doon waxe léegi mu mel ne ñëpp a war a xool ci aw doxinam di roy ci moom te itam bëggut a feeñ ci dara kon nag kooku jar nañu ñaanal ko te itam fu ñu fu mu toll rek ñu di ko jàppale jàppale gi nag mooy li nga xam ne ñi nga xam ne am nañu mën-mënu euh, lii muy nekk ñu jàppale ko ci ndax kenn ku ne xam na ne ab bërëbu fajuwaay dafa bari lu muy laaj lu war a ànd ak moom euh, tabax nañ bâtiment bi ba pare waaye jàpp nañ ne am na yu bëree bëree bëri yoo xam ne lu fi war a dem la kon nag loolu ñu ngi ñaan julli ñi yëpp rawatina mbokk taalibe yi ñu jàppale ko ci bu baax a baax a baax ci taxawaay. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. mbooloo bi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare. te nuyu sëriñ Ahmad Badawiyu ak alaaji Fàllu Njaay yi ñu fekk suñ xol sedd na guyi ci liinu nu teewe ak lii nu gis ñu ngi ndokkeel sëriñ bi te di ko félicité te di ko ñaanal daraje suñ Fàllu Mbàkke baayam ak maamam Seexul Xadim yàlla yàggal ko fi te wéral ko lii mu sumb fas yéene ko liggéeyal baayam ak maamam ci dëkkam bi yàlla may ko kattan gum ci mën a àggale yéeneem lu sore sore sore day mel ni nag lii mu def nii walla xarwa du kéemaan ndax doomi sëñ Fallou su jógee ngir di defar loo xam ne day yërëm bindee fii day mel ni wàcc na ndax ku ne xam na ne baayam amaloon du mbindeef yi yëpp jàmm yemale woo ci murit yi ak ñu dul murit ak ñu jullit sax képp koo xam ne mbindeef nga rek ëmbaloon na la jàmm jàmm joojee nag la ko yàlla faye lii lépp lim def baax na lool ndax nit ki mënta jaamu yàlla te xamut mënta jaamu yàlla te wérul kon day mel ni yaar yooyu ñooy fondation l'islam ndax jaamu yàlla gu àndut ko xam amul njariñ mën nit it mënta jaamu yàlla te wérul lii mu taxawal ci ay daara ci ay fra daara alxuraan ak ay franco arabe lu ëpp mille quelques personnes di ci jàng te duñ fay dara xam na li taxoon sañ ci dëkk bi xam na li taxoon baayam sanc ndindi gi ndax nit ñi war nañ ko ci roy bu baax a baax ñi nga xam ne yàlla may na leen kàttan buñ ko mën a defee te xam ne barkeb sëñ bi rek moo indi lii du sun ngóora du sun xam-xam du sun lara sëñ bi rek sëñ bi nag bu ko defaree war ngaa delloo njukkal sëñ bi delloo njukkal sëñ bi nag mooy nekk ci li sëñ bi bëggoon di ci xëy di ci gont moom na ku ne xam na ne ci bëggu sëñ bi lay xëy di ci gont ndax dëkk bi tumuraanke ne lii lool hôpital boo fi dem dangay fekk couloir yi fees del nit ñi def yendu ak fanaan di rang duñ am ñu leen mën a faj kon nag bu jógee taxawal lii ku ne xam na ne ëmbal na ni yërmaande ndax nit ki bu bëggee nga wér bëgg na nga gudd fan bu bëggee nga jàng bëgg na nga jaamu yàlla ba tax na sant nañ ci bu baax a baax a baax ñu ngi koy ñaaral bu baax a baax di ko ci encouragé tey bëgg nag nit ñu roy ko ci nañ ko ci roy ndax nit ñu war nañoo dellool sëñ bi njukkal képp koo xam nga am nga dara joo xam ne laal nga ci sëñ bi war ngaa delloo sëñ bi njukkal ndax sëñ bi wàccoon ak ñoom ñoom rek ñoo ci des sëñ bi ndax lépp mooma loo fi gis rek mooma faggutee fa moom kon nag sant nañ ko gërëm nañ ko yàlla na ko sëñ Tuubaa taxaw ak sëñ Fallu Mbàkke yàlla na ko defal lu kaw ak njortam bi yaay Seexul Xadiim xanaa sant yàlla bu baax sëñ bi rek te di ko ñaanal ndax li ñu jafe mu defal ñu ko moom dañ koy sant rek te di ko ñaanal ci sëñ Fallu lim ci bëgg yàlla na ko ci sëñ Fallou defal ndax sa sa Amadou Badi jàppale na dëkk bi ndaw ñi mag ñi góor ñi jigéen ñi ndax kenn ku ne xam nga dangaa waroon a sonn te sonnoo ndax ndax sëñ bi andil nañu école yi xale yi di ci jàng mu indi hôpital bi ñu ciy faju te loolu lépp man jafe woon nañu waaye sëñ bi yombalal nañu ko ñi ñaan ci dëkk bi ah bi médecin ak sage-femme yu baax yu ñu fi mën a nekkal dañu faj di toppatoo ah, xale yi ah, xale yi ambu ak bu ñuy am doom ak ñu seet yaram yi ak ak yooyu ñu se ñu dimbali ñu ci ah, bu dee president bu dee Marème fay Sall comme ci man doon daal nga jàppale ñu ci loolu ñun dindi sañ fàll waaw aajo woon nañ loolu ñu ngi sant nag si Hamadou Badi ndax fii kat ci ndindi bu ñëpp meloon ni moom. kon dëkk bi dem na bu yàgg ci ci bi bi nekk ndindi sëñ Modou Boussa Dieng moo ko fi defoon ci boobu lañ nekkoon di faj moo ne ci biir dëkk bi ci lañ nekkoon léegi nag sa xam di fi bii day day day gën a baax rek waaw ndax bu ñeenee fee ñeenee fii lépp day gën a baax waaw dëkk bi day gën a màgg rek njariñ bi ah xam nga njariñ la ko bëgg a faju ñëw faju njariñ la sa doom feebar nga ñëw faj ko njariñ la jigéen wérut ñëw uh, wisitu fi njariñ la wasini fi njariñ la lépp njariñ la ma di leen xamane le sëñ Fallou genn wàllu adduna la genn wàllu adduna fu mu ne mu yëngu te fu mu ne ñu baax a fay ne ñuy tekkee fa ne ñuy ñuy def ñuy defara fa ne ku yàq du fa dëkk mukk ci adduna te te hôpital bi nii moom kay li ma ko si moom mii ba mu taata ba ba mu ngi ma taata indi ba ñu taata lii am na lu ma ko tàmbalin nee naa ko hôpital bi képp ku fi dugg yal na nga fi génne na nga ci dugg ci a rahmaani génne fi alhamdulilah rabbil aalamiina yal na sedd guyu mboole meetar yi ñi fi teg yal na seen xel dal ñu ànd ko fit ànd ak jom te fas yéene ku fi dikk ñu saafara li sa jàngoro nga dem ci jàmm ci dara ji Serigne Touba. wax bi yëpp ñëpp la boole lañ ñëpp lañ ci boole kon nun sant nañ yàlla sant nañ yonent bi sant nañ bu baax a baax a baax. di leen gërëm ba fa kanam yàlla yont bi di ñaan itam ci seen kilifa diine yi sëñ Abo Mbakke ak seex ñii fi nekk di yooy waa kër sëñ Fallu yàlla yàggal leen fi te wéral leen te ñi ci seen gannaaw wér wérle euh, ñu ngi nuyoo ñun docteur Mamadou Dieng la ñu tudd nekk médecin chef district sanitaire de Touba euh, di am mbégte di ñëw tey fii ci centre de santé bu Ndindi bi nga xam ne sëñ Ahmadou wi moo ko tabax liggéey ko ba mu àgg mu jébbal ko askan wi ngir mu mën taxawu taalibe yi nekk fii ci Ndindi ak ñi ko wër ak gox yi ko wër yëpp muy centre de santé bu mag boo xam ne am na ci biir euh, ay bureau médecin bureau sage-femme salle bu mag boo xam ne am na li maternité war a am yëpp muy salle d'accouchement am salle de travail am salle d'hospitalisation am suite de couche am ay bureau yu doy mu nekk maternité bu dëppoo ak jamono nekk liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la bu am solo euh, am na ci biir centre de santé bi tamit euh, pàcc bu ñuy wax médecine am li nga xam ne moom la centre de santé yi teewoo te war ko am muy bërëb boo xam ne dinañ fa seet mag ñi ak xale yi ak jigéen ñi muy bureau médecin yi bureau triage ak ay salle d'hospitalisation ay salle de soins muy maanaam euh, bërëbu fajukaay boo xam ne euh, bi ko sëñ bi di liggéey daf ci bàyyi xel bu baax askan wi ngir ñu bañ a jéggaanee ji ci am paj ba tax mu liggéey ko liggéey bu mucc ayib ñuy am mbégte di ànd ak moom ci liggéey bi eh, mu nekk liggéey boo xam ne nag fii ñu ko def njëriñ li dafa nekk lu am njëriñ ndax ku nekk xam na ni fii ñu ko def ci Ndindi eh, béréb la boo xam ne eh, amul woon poste de santé poste de santé bi daf ko sori ndax Ndindi dafa yaatu ñu bari dëkkoon fii dañuy dem jéggaani ji soit dem ci poste de santé yi wala ñu dem guy mbind walla ndaamaatu yàlla dogal sëñ bi def ko fi nag muy loo xam ne dañ koy rafetlu en tant que médecin chef du district toogal fi ministère la santé ñuy rafetlu bu baax liggéey bi ak fii mu ko def te liñ ci gën a rafetlu nag mooy fii laata ñu koy tabax sëriñ bi ci boppam daf ñu woolu ñu ñëw mu wax ñu mébétam ñu rafetlu ko mu dëppoo woon tamit ñuy def carte sanitaire Touba mooy seet bërëbu fajukaay yi sumb daf ñu woo ñu ñëw mu laaj ñu fan la gëne ci ndindi ñu ànd ak moom ba ci bërëb bi nemmeeku bërëb bi ne ko fii de soo ko fi defee dina amal njëriñ askan wi sëriñ bi ànd ci ak ñun ñu tàmbali liggéey bi mu won ñu plan yi ne ñu xool leen plan yi ngeen fexe mu dëppoo ak bërëbu fajukaay bu mucc ayib ñu ànd ak moom saytu plan yi am luñ ko ci wax mu yokk ko ci lii mu wàññi ko ci ba bërëb bi daal nekk bërëb boo xam ne tey jii bërëb bu dëppoo ak jamono la ci wàllu paj euh, bi mu paree itam euh, ànd nañ ci ñëw fii euh, xool nan la ñuy fexee ba tijji ko xalif bi ñëw na fi def fi ñaan ubbi béréb bi lu koy siyaar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér e, def na fi ay ñaan ngir bërëb bi nekk bërëb boo xam ne ku fi dugg mucc ku fi dugg ak feebar sooy génn sa feebar saafaraw kon tey jii dañu ñëwoon ànd ak ay docteur yu jóge bitim réew ñëw ànd ak ñun ngir ñu def ay consultation gratuite ngir maanaam ñu def paj moo xam ne dañ koy maye ngir nit ñi mën a xam si béréb bi mën a xam ne ñoom lañ ko fi defal tey nag seet nañ fi lim bu takku boo xam ne eh, ay nit ñu dëkk ci gox bi la ak li ko wër ak ñoo xam ne sax dañ ko dégg ñëw fekke ci consultation yi ñu koy rafetlu bu baax kon centre bi ubbi na bés ni ki tey comme ni ko sëñ bi bëggee te lu ko def fi li fi war a nekk yépp centre de santé bu Ndindi ubbi na équipe yiy faj ñëw nañu ñu ngi sur place sage femme bi ñoo ànd docteur bi moom yàgg na fi fan yi yëpp mu ngi fi di nemmeeku ci bërëb bi ak di taxawu matériel bi ñu war a monter yooyu waa matériel bi aussi li ñu war a tàmbalee ñëw na euh, donc dinañ tàmbali li ci des dinañ continuer di ko compléter ba lépp di mat waaye daal bés ni ki tey nii dañuy tàmbali liggéey bi ànd ci nag ak sëñ bi di sàkku ay ñaanam ngir yàlla defal ñu ci ndam euh, ñu ngi sant sëriñ bi nag bu baax ndax béréb bii bi mu ko tabaxee euh, diisoo nañ ci lu bari mu xamal ma ne ma lii ma fi def séntuwuma ci dara lu jëm ci man li ma ciy séntu rek mooy mu jë mu jëriñ askan wi teggil askan wi seen coono surtout ñi nga xam ne ay néew di doole lañu dëkkee fii ci Ndindi ak li ko wër ñu ci tuubaa rek ci gàttal ñu fexe ba di leen taxawu te paj mi jàppandi lool te moom loxoom du ko ci génne dina leen jàppale ba lépp lu ñu yittewoo ci barab bi rek dina fi am sëñ bi daal mébétam mooy loolu mooy fexe daal ba euh, ñi nga xam ne dañ fi dëkkee ci wet gi daan jéggaani di am paj di ci daj coono yu nekk mu fexe ba coono yooyu wàcc leen fexe ba saa suñu yittewoo bërëbu fajukaay suñu fi ñëwee seen aajo faju kon ñu ngi sant sëriñ bi bu baax di sant kilifa yëpp di sant tam personnel bi def liggéey bu rafet bi tey di sant tamit suñu naataangoo yi jóge bitim réew nga xam yéene lañ ci àndal ak pas-pas ñëw indaale ay garab taxu population yi kon ñu ngi leen di sant di sant population yi tamit di leen wax ni soxlaatul ñuy romb seen hôpital di dem ci beneen hôpital ku ci am yitte ci wàllu hôpital rek na ñëw fii am na ay xale yu xarañ yu mën liggéey ñi ci ëpp hôpital Sëñ Mbàkke na bale ñuy wax jéemul fa lañ bàyyi ñu indi leen fi tànn leen ngir ñu mën taxawu ñi ñi wet gi kon ku ci soxlaati rek na ñëw ci béréb bi faju si Tuubaa xam nga dëkk la boo xam ne population bi day màgg te màgg gi day gaaw ndax xam nga soo demee ci dëkk yu bëri lii màggal dëkk bi mooy ñëfay juddoo ñiy juddoo ci dëkk bi ñoom ñoo yokk ci lim bi nekk ci dëkk bi mais Touba nag day am ñuy juddoo ci dëkk bi waaye am beneen phénomène bu gën a gaaw yokk population mooy eh, ñi nga xam ne dañuy ñëw di sanc si Touba yaakaar sëñ Touba ñëw bàyyi seeni dëkk ñëw sanc si fii nga xam loolu soo ko méngaleeg liy juddoo ci dëkk bi daanaka day yokk ñetti yoon lim boobu kon Touba bërëbu fajukaay du fi doy te Touba dëkk bu mag la boo xam ne lim bi fi war a am ci bërëbu fajukaay donte ne état bi mu ngi góorlu ci at yi ñu gis yëpp ñu ngi fi tabax ay hôpital di tabax ay poste de santé waaye màggaayu dëkk bi dafa gën a gaaw loolu tabax yooyu ñuy tabax ba tax initiative yi nga xam ne sëriñ bi jël na ko dañ koy rafetlu te it def na loo xam ne maanaam kenn mënu ko fay ku dul sëñ Touba kon ñu ngi ñaan sëriñ Touba mi am fay fayal ñu ko ndax ñun ci suñu biir liggéey dañu gis ne dëkk bi am na barab yoo xam ne dañu tumuranke bërëbu fajukaay te wet gii mu tabax hôpital bi bokkoon na ci barab yooyu kon moom dafa mel ne dafa yëg loolu nga xam ne ñun suñu liggéey dañ ci mébét ak di ci waxtaan ak suñuy kilifa moom daf ko yëg mel ni ku ko yëg ba pare gën leen ci gaaw ndax tabax biikat kat yàggut bi mu ko tàmbalee te tabax la boo xam ne maanaam tabax bu mucc ayib la ndax li mu def yëpp ci xam-xam la ko teg lu mu ci toll moom da ciy am gis-gis sax bu leer waaye du ko tee laajte te li ëpp su laajtee gis-gis ba mu ci amoon day dëppoo ak ni nga xam ne ka muy laaj noonu lay gisee nga xam ne sëriñ bi kon ci xam-xam la dox ba agsi fii kon ñu ngi koy sant bu baax di ñaan tamit ñi mën am am lu ñu defee lii fa ñu dëkk wala fa ñu nekk te nekk ci dëkk bi ñu fexe ba roy ko ci rek def su ko defee dootuñu jàmbat affaire u toog di wax état bi defu fi lii ak yooyu defe naa ñu bari am na nañu wërsëg woo xam ne euh, mën nañu euh, def lu deme nii wala ñu booloo sax def ko su fekkee ne kenn rek mënu ko def ñu booloo def ko te xam ne maanaam liggéeyal sëñ Touba ci la bokk ndax tabax bérébu fajukaay taalibe yi di fa fajoo ngir gën a mën am kattanu liggéeyal sëñ bi loolu dugal sa loxo ci nu rafet la ci liggéey sëñ bi surtout ci wàllu faj nag nga xam ne faj moom dafa bokk ci jaamu yàlla ndax sa moroomu doomu aadama toll diggante ci wàllu wér-gu-yaramam nga koy taxaw am yéene mu wér ba mën a dellu ci ay liñ ko sant ci wàllu liggéeyam loolu dafa nekk loo xam ne jaamu yàlla la tabax tam bérébu fajukaay loolu moom kenn amul fayam ndax ku ca fayee ku ca faju rek maanaam kay fay tey yor fay gi dina la fay kon sëriñ bi daal ñu ngi koy ñaanal mu wér gudd fan lii mu sumb fii yàlla na ko yàlla wërsëgal lu mu ko defee feneen ci Touba te mu amal njariñ nit ñi ñëpp amal njariñ taalibe yëpp jërëjëf